mbokk internet yu impro am nañu mbégte jàkkaarwaat ak yéen ni ñu koy defee saa su ne ci li nga xam ne mooy actualité tey ñu war a waxtaan ci làmp seet si kenn koo xam ne dootu ko présenté muy Wouly waaye Wouly du ma waxtaan ci carrière am tey li may waxtaan mooy li nga xam ne mooy actualité bi mooy diggante Tapha Tine Balla Gaye ma bàyyi ko mu nuyoo ma dugg ci question yi Wouly nuyu naa la. Fad Fadel maa ngi lay nuyu di nuyu import Madoun sama xarit nit ko baax. sant yàlla bu wër di jur Seydina Mohamed di jur sama ñaari waajur euh, Fadel combat boobu moom vraiment dama cee wax wax naa ci lu bari combat boobu woon na Serigne Saliou comme sama combat ak Lirou la. Ah ah. lu tax loolu. yomb comme maag la mu ragal daw bëriwul. yow bëri ji ba pare te ñëwagul. gis nga gis nga euh, bala Gaye ak tafaatin man laa wax dugg combat maa ngi nag dalal bépp xelu bool bool barke sëñ Bamba Mbakke bu lee bu dee combat bu njëkk ba moo leen nax. xam nga da waxoon wax ju njëkk bu njëkk ba da ngeen a waxoon lii lépp ñëw laam Balla ne moo gën a yomb ci samay komba boo xoolee mu dugg ci gàtt tafatin def ko la mu koy def yu gaañ ko daan ko. no bokkul. lan mooy différence. Fadel Balla ba muy daan tafatin ak euh, tafaatin mi bokkul man xam naa bu maanaam Balla Gaye combat bu njëkk ba lay ndamoo te boobu ak léegi moom bu xoolee li fi tafaatin daan daanu ko fi Balla Gaye trois ans yi ñu gën li tafaatin am ci fer performance amu ko Balla Gaye na daan presque ca Modou Lo ba mbooy jëlee koo daan giir jël ba leerut comme li mu wax tafaatin nee na nu Ameth Sène moo bëre moo xeex moo moo daanu Gris moo bëre moo xeex moo daanu Boy Niang daan ko. xam nga problème bala gay toujours da koy wax damaa xam Tapha ba nuy jëkk a bëre mbapat maa ngi toog Tapha Tine nekk tag si maan bala gay bi rek ay mbër Assane Diouf nu ñëw bëre bëre bu yàgg mënu ko daan bu beneen 45 minutes combat bi wax naa ko. liiru jaan nga xam ne wax kese la mën xam nga géejawaay moom wax rek wax rek wax rek wax rek wax rek wax rek ñi li maanaam ñi ñi wax géejawaay lañ dëkk. ah bi sa maanaam dañoo jee sax maire bu nga maire moom. ko maire waxkat la am. wax maanaam waxkat ku di dem ba gis ñëpp ba bay fi ñëpp fol fal buy wax. kon géejawaay bu bu nu waxee wàcc nañu. <laughs> kon dana doon doy ku bay ñëpp jël maire waxkat kon géejawaay bés baree wax kay wàcc nañu nag <laughs> seen maire baa ngi xuloo ak ñoom ci bu xuloo ay <laughs> ay nit bi nga xam ne yow yaay meeru géejawaay ngay xuloo say mbër naa du ma ci dimbali kenn di wax maanaam ñoom fi mu toll ñoo seen message nga xuloo parce que ma nga xam ne kon géejawaay liiru jaan dañu ko jël pour muy wax tëra tëra rek mais wane même Balla Gaye loolu la mën di wax rek. wax ak Balla day wax day jëf. bu jekk Balla bu jekk mais actuellement nii man man xam naa ne combat bii man pare naa pour teg xaalis. yow mii parce que sëñ Saalum pare naa pour teg xaalis. su Balla Gaye daan Tapha Tine du am nu ma koy daane. ñu ngi ko daane woon boobu ak léegi bokkul. ci diggante bal dafay naan soow. bo soo bala soo mi yàqu. <laughs> sëñ yàq nag kii jeex na nag xam naa ne ataaya lay naan léegi mais ataaya bi muy naan da koo jeexal te maanaam jeex maanaam mën nga jeex. mi muscle mais ba bala sax dama gis ci moom ay muscle. bala mi entraîné ba dagg ah moom boppam souplesse. bala ba mu ñëwee ba tey nangu sa sol. ay set ay blouson lay sol. Ah, parce que la. non blouson yu tàng lay sol tàngoor bi nga xam ne nekku ci état bala Gaye bu nekkoon ci état dëgg foo ko gis ba di lay sol ay set bala Gaye nekku ci état. kon yi ne Tapha bi mu yor baax ku ko wax waxoo dëgg. bi mu yor mënta. bii mu yor mooy état mbër parce que entraîné na te liiru jaan laa wax bu ñu ñemee teg xaalis wax rek la mën. suñu combat nee na kon kalang kalang ma doog ba mu daaw Balla Gaye mënta ànd ak ku ñime. mais ay yambara ko dal liir jaam këccëb ma ma ma ñu ànd ko <laughs> du ngeen bàyyi combat man moom ba dama koy bàyyi dama koy ba parce que. parce ngeen téeméeri yoon. comme ñi ma ma liiru jaan du ma naa ko mu daw këcceeb ñi ma wuma Sa Thiès nu may rawaas. kan Sa Sa Thiès la mën moo la mën aller retour. waaw mbàkk mënuma ra man daa bëgg kooku moo gën a ragal ñëpp. Sa daal la nga ne mën. yambar la. ah Sa Thiès. yambar la. làmb moom booleegul la mën. yambar yambar tap bëre ragal boobu. doog a muy taxaw kooku tapet. <laughs> kooku ba ko amee seen doole la taxaw di tapet bu yow noo gisee mu xale bu bu ndaw di wane ay bannaan damay gañ. blessure ci làmb. waaye tapet la. Tapha Tine ni borom sañ la. Tapha Tine yal na ndam aussi di lancer appel Fadel bawol bawol yëpp laay lancer appel combat bi man wax naa leen ko damay ubben kañot boo xam ne dina bëgg nu ñëpp képp képp ku dekk bawol nga jàppale Tapha kañat boobu dama ci ànd ak président fan si club Tabaté ak Siga jon ñu def benn kañat boo xam ne képp kuy bawol bawol di nga jàppale tafaatin loo am combat bi ku ko yaakaar sëriñ Serigne Serigne tudd fii kenn laa wax saa cee ba nu ko dooree la dafa taxaw am na galaaj ay sëriñ yu bari la andi ba géew bee benn sëriñ du dugg foofu Tapha Tine loolu la teel a xam ba dem entraîné ji. Balla da ngaa yaakaar ko. Incept si la jógee. Balla ne ko fay naan ataaya. ataaya. bi bi ni tuuti nii est naanu ataaya. te boo buy wàññi nit balaa balaa caay lay naan caay bay na soow moom mu ngi ci ataaya bi nii mu bu amoon biir mu ngi naan soow mais nii mu tuutee nii ataaya lay naan. xam nga problème mu Balla def ne Tapha Tine yuuxul Tapha Tine wax na bu yuuxu mu ne ko yuuxul da ngay dàq stress waaye dama lay duma dama lay daan la defoon ah! xew ci yéen ah! lii la. mais yuuxu xanaa lay bari doole. Ah! <laughs> ku amul doole doo yuuxu. ku am doole mooy yuuxu. Tafa yuuxu bi man maa ko ne yuuxul. yow yaa ko jox yuuxu bi. Tafa maa ne da yuuxu parce que da du doo man macha allah boo antee ne am doole. bi damaa ko ne signature bi yu parce que ñëpp a ngi foog ne Tapha Tine dafa ragal te barki Tapha Tine ëpp bala ngay fit xam naa loolu parce que reefan kër dafa di ragal. ne boo ñëwee yuuxul ah! xaadim Njaay maa ngi koy sant bu ko gërëm. xaadim maa ngi koy sant gërëm xaadim Njaay nit ku baax la. waaw ah. ah. Tapha Tine dina est-ce que xam nga ne signature yii di ñëw sax dina maanaam bu nu deful ndànk sax day. day waaw su day yuuxu suñu yére yi waaw. ana Cheikh Niang. Cheikh Cheikh Niang. Cheikh moom. man damaa benn góor gu baax mu ne ma làmb ji ñett a ci dàq xeex. may lim boobu sax maa ngi wax xalaat mu tudd mu tudd la ci mais xam naa ne bokkoo ci course bi Modou Lo la ma wax. Gris Bordeaux man ak Akar mu na ma seex Niang moo dàq xeex mu ne ma damaa fekk dis kaawoom. ko wax loolu Père Khadim Sall. ba eh, Père dafa juum. ah nu mu mu yàgg ci laa mu ji mën laa yàgg fekk fekk loo fekkee. Cheikh Niang lan moo tax mu mën a te man ma daan ko ñetti yoon. foo ko daanee. Sambe Bambe Tëngéej. ak Sëñ la ma daan Jurbel pour pour mu yàqu. mais boog loolu jotewul la xeex daf ne moom moo dàq xeex ci làmb. ñett yëpp dama ko duma. yéen fekk naa boobu dafa yàqu woon. boobu dama ko doom mu yàqu. ana bi fa nga ko duma. bel suñu premier combat ñu xeexee bu miti ma ñu ñu yokk victoire ñu dem Saambe booy ñang taxaw ma koy door di ko door ba ca ginnaaw saako yi maa ko door Saambe daan ko Bambey door ko mu daanu euh, Rufisque. kon Père Khadim bu waxee ne seen ñaŋ moo dax euh, xeex dina naa fekk réeragul mala muy am mbokkam di géwél comme moom euh, ne la ko bandum mais Cheikh Niang maa ko dax xeex fuuf. nee na fekk na 10 kawoo. Bordeaux Tapha na ko dax xeex Modou Lo Tapha Tine na ko dax xeex. mais Tapha Tine dooru gu fi kenn mu daal. Modou xeex. waaye Modou Lo dafa mën a xeex. ah donc yow waxal ba. tamit koor nañ kum koor ba bàyyi la nga du xeex. luy xeex mooy li Tapha def Elton di la dóor ngay rab Modou Lo doogu fi kenn ba mu nagu ko làmb ji. ah maag dóor fi dóor fi ama seen mel ni balu tànk. Serigne Saliou lamb ji maag Tapha Tine def dafa xeex. yow yow kan <laughs> changé bëri am naa neuf kaw. am naa neuf kaw. man man la ko tey. Cheikh Niang. Dominique. Dominique xanaa fu mu dëkk Pikine Adama Cere. waaw Escorpion. yu yaawu jaal Baye Sall bu Kayaar ah ak euh, kii euh, ki ma mujj a door mu daanu euh, sepp laa li laa li ma gën. de Dominique Adama Cere. Cheikh Niang. dooraat na. yaa ñaar laa ko doomu ñaar yoon laa doomu daanu ak yu muy neuf kawoo. Eh, nas. nas maa ngi ko daan Louga dama ko dóor bu mu daanu. Ah, door naa fi mbër ci lam bu mu dam barke Mouhamed booy suma combat man dama jox épreuve combat booy naar Jordan bi amoon Thiès booy. souvent écrit fay la nekk dama koo dóor ba mu dam am naa soog fa jëlee ah! kon Tafatine ba Tafatine la nar a gis le 21 juillet. Tafatine bu ñëw andi doole andi xeex duma bala gay daan ko. waaye mbaa yóbbu faa. pay naa puut xaalis. ak sëñ Saalum. kon liiru jaan bu tegee nga teg. liiru jaan day teg muy tapet. liiru ñeme naa teg un na. liiru sama kaw bu tegee ma teg deux millions. Ah. liiru jaan maa ko mën. Hmm? tafaatina mën. Balla Gaye Golo. fa fa ko mën naa ndewaan ko mën entraîneur bi. ndewaan waaw. parce que mbay ndew mën Lamine Golo maa mën liiru jaan. Tapha Tine mën Balla Gaye. Ketchup bay guy gi laa koy boole mu rëy ko may <laughs> waaw. lan ngay wax kon Balla Gaye. li ma koy wax moom sama waay la ku mu bëreel groupe Tapha Tine moom laa àndal parce que Aziz moo tax mais mais bi Aziz sax xam na ne Balla Gaye sama mbërëm mais Aziz xam na ne Tapha sama mbokk la dem dem woo na ma parce que Aziz xam na ne ne de ko ba nu tuñ ñun dina soxla. te Balla Gaye loolu mooy espoir parce que bi may bëreek liiru jaan liiru jaan la faral. Balla Gaye moo jàpp sama loxo yi moo ma ko am moo ma ne maa la jàpp sa loxo yi ba loxo doxul. kon loolu loxo mën ta jàpp loxo tafaati. booba damaa damaa naagu woon na mu jàpp woon samay loxo ca liiru jaan ma ma ma mer noonu laay jàpp ay loxoom tafaati du ma ko daan ko. ndax gis nga Balla Gaye wuti léegi bokk billaahi barke gis nga Balla Gaye bu jëkk ba moo ko nar nax combat bu jëkk ba moo ko nar a nax billaahi wallaahi tafaatin xoolal tafaatin est-ce que xam ne depuis daan ko daanuwul. six victoire d'affilée. kon laam ji dóor mu daanu mën na ci am. mooy am kay. tafaatin ne ko di nga gis ku nu dóora dóora dóora dóora ba ndigli tafaatin dina ko dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor a dóor xam nga si fan yi rek bilaay walaay jooyeeguñu. jërëjëf original original Lamine. xam nga si original. xamaguma ko nag parce que da ngay cote rek paase ko. non waaw d' accord mais est ce que xam nga si original yow. waaw xam naa ko nii mooy bis bi am ferñeent yi dangay lekk naan. waxaat na ma li euh, dakaar ba Fadel. xam nga si original. mooy jus bi am ferñeent yi nga xam ne da ngay lekk naan. jus bu bees bi. bi nga xam ne ndukuma groupe moo ko fi andi Mamadou Diouf moo xam suñu bay as ndaw ndukumaan nekk nit koo xam ne si bi ut ci xaalis dafa dem Arabie Saoudi xool si bin naar yi gën a bëgg di ko naan mu andi ñu ko Sénégal. def ko prix bu yomb est-ce que xam nga ne jus original moo gën a yomb ci si nekk ci Ndakaaru. te moo ëpp ferñeent yi. moo ci ëpp ferñeent da ngay naan di saxam yi. tey ah! rek ma loolu ko joxe numéro bi. waaw ku bëgg a naan ku bëgg a naan jus original. Hmm. Madou nga may ma lii ngir yàlla ku bëgg ku bëgg jën jus original. ak foo mën a nekk ci Ndakaarook Sénégal boo wootee 77 644 15 67 ñu débale ko 77 644 15 67 original mooy bu baax bi si yii yii fi nekk kanit yii fi nekk bal leen ko day feebarat dara baaxu ci original moo baax moo gore ah